di leen dalalaat ci seen émission sociétal penc mi tey nag euh, ñu am comme invité maître Cheikh Ahmed Cheikh Cheikh na Ahmed ay dara moom juriste la nekkit membre de la société civile ñu fas yéene waxtaan ak moom nag euh, ci arrestation bu Pape Alé Niang bi wante itam euh, li nga xam ne moom mooy audition Ousmane Sonko ak it procédure bi ana laka lan moo ci mën a xewaat kon xam naa balaa muy rek ma bàyyi ko mu nuyanteeg euh, mbokk internet yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, tout d'abord monsieur Diouf maa ngi lay bu baax a baax di nuyu aussi mbokk internet yi nga xamante ne ni ñu ngi travers seen plateforme Seneinfo. Mm-hmm. waaw euh, sama laaj bu njëkk rek dama koy jëmale ci mbirum Pape Alé Niang nga xam ne dañ ko arrêté dimanche. di ko jiñ nag euh, ñu ne dafa génne peut ay kayit yoo xam ne kayitu l'armée bi la yoo xam ne daal amu ci amu ci woon droit pour def gi demee noonu amu ci euh, noonu la autorisation hiérarchique gi demee noonu euh, loolu daal yaakaar mën naa ne mooy principal kii bi dinañ si dinañ si gën a xootal bu ñu ñëwee ana naka nga jàngatee balaa ñu ci dugg arrestation boobu noonu. waaw arrestation bi moom comme niñ ko waxee rek ndaxte dafay laal benn mbir bu am solo mooy liberté de la presse. ndax liberté de la presse c'est une liberté on peut dire consacrée par la constitution c'est-à-dire constitution sartu ndeyu réew mi moo jox ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci wàllu média wàllu comme journaliste yi ak yu demee noonu ñu am liberté ci seen métier waaye nag ndax euh, dàqontewul aussi ne liberté de la presse moom la ñuy wax c'est une liberté conditionnelle c'est-à-dire que du du lu la neex nga koy doxalee wala du lu la neex tamit ngay xam wax ko wala du lu la neex ngay publier dafa am noo xamante ne nii c'est des choses yoo xam ne daf si daf si génne ndax liberté yi dañ koy xaaj ñaar mooy liberté conditionnelle ak liberté non conditionnelle tey liberté de la presse dafa bokk si liberté yi nga xamante ne nii c'est conditionnel c'est-à-dire que am na domaine yoo xamante ne dañ leen dañ fay taxaw ne leen halte yi c'est des choses classées top secret comme ni ko waxee document yi nga xamante ne dafa nekk ay PV wala ay enquête wala ay noonu des fois l'autorité peut juger nécessaire mu wax yoo xamante ne nii c'est classé secret donc journaliste bi même su ko amee amul droit di ko divulguer au grand au grand public am liberté yoo xam ne c'est des libertés non conditionnelles voilà comme comme lu si mel ni liberté de la vie tout ça yooyu moom beneen kii la. Ah, donte mu nekk tey mun nañ xam ne moom euh, journaliste d'investigation la mun nañ ko waxee noonu mm. est-ce que tamit tey euh, le fait mu doon journaliste d'investigation boobu du ko may mu demee ba gis euh, yenn yi mu war ko mu war ko mu war ko mën a fësal donte ne gis nañ ne yu mel noonu saa amee rek. faaw faaw coow day am quoi est-ce que tey journaliste délégation bi mu doon euh, taxul mu mën a def euh, li mu def noonu. waaw fii bu fekkee Sénégal fii dañuy wax ne journaliste d'investigation am na fi bon c'est à revoir c'est à revoir dans la mesure où tey jii da gis benn journaliste muy mu muy wax yenn dossier di wax yenn dossier de manière mu xaw a sori si biir dossier bi rek. ñu ne journaliste d'investigation la. léegi loolu ça reste à prouver parce que man je n'ai aucun effort aucune information bu may wax ne Pape Alé Niang journaliste d'investigation la mais ak lu ma mën a demee rek ñun suñu suñu suñu suñu code pénal ak li nga xamante ne mooy suñuy texte yi nga xam ne moo encadré wàllu déontologie journalistique ak yu demee noonu dafay aaya yu demee noonu comme lu su mel ni code pénal bi daf ko indi mu leer nañ li nga xam ne nii mooy article 64 bi dafa ñëw di tere nit ki wala journaliste bi donte ne moo xam sénégalais la wala du sénégalais moo xam ba mu koy génne sax génne ko woon ngir ngir ngir ngir yàq wala dara waaye comme génne na ko rek ay information judiciaire yoo xamante ne mayuñu ko woon mu génne ko rek bu boobaa yoon mën naa dal si kawam. Mhm. kon da ngay gis ne day ñëw di réguler li nga xamante ne nii mooy métier journaliste kon ñëwul rek ne journaliste bi day ñëw euh, lu mu xam rek daal di ko génne noonu. beneen pàcc bi te tey jàpp ne maanaam day peut-être état bu Sénégal. moo yor euh, démarche boo xam ne daal ñee dañoo jàppee ne peut-être euh, lii di justice tëddeewul njaaxaanaay euh, ba di ko accuser yenn yi daal ba tax ñoom peut-être lee buñ koy def it day day day nekk daal xam nga nu ma ko mën a waxee benn bur boo xam ne dañ naan daal comme que yéen ni ngeen di doxalee ñun it nu ñu neex nu nu ñu neex ñu doxalee. waaw léegi foofu mooy da nga da nga soulever benn question bu am solo mooy. justice ni muy doxee ci réew mi a justice ak justiciable ñi nga xam ne ñoom ñoo aajowoo ndax tey jii ñun lépp lu ñuy wax rek ñun juristes yi dañuy wax ne textes yi la ñuy jiital ba pare si lépp lu ñuy wax. parce que même bu fekkee autorité bi yow yow da nga jàpp que autorité bi mën jàpp ne yow jàdd na yoon fekk jàddul yoon. bu fekkee yow danga jàpp ne jàdd na yoon nga ne man tamit damay def lu ma neex bu boobaa day indi li nga xamante ne nii mooy la taxoon état de droit ñëw loolu lay daaneel mooy lan état de droit dañ ko fi indi woon ngir lan organiser organiser penc mi ba ku nekk la fa nga war a yem nga yem fa la nga war a def nga def. mais bu boobaa bu fekkee dañ ne kii day day jéggi muy day jéggi fii man tamit damay jéggi keneen ne day jéggi keneen day jéggi bu boobaa li nga xamante ne nii mooy état mooy daan parce que bu boobaa loi yu ñuy tëgg. Mhm. wala yoon yu ñuy tëgg di ko teg dutu amati sens. kon bu boobaa ku nekk day jóg rek def la la neexe wala ku nekk day jóg waxe na la neexe bàyyi fi texte yi bàyyi fi li nga xamante ne nii texte yi ñëw di organiser penc mi ku nekk xam say sañ-sañ fi mu yem waaye tamit xam li nga xamante ne moo Mhm. kon loolu noonu day am solo bu baax a baax a baax ñu xam ne tamit yow mën ngaa jàpp ne justice bi nii parce que ku nekk ak ni muy jugé. Mhm. ku nekk aussi ak ni muy xalaatee mbir nu muy demee. Mhm. parce que sénégalais yi dañ chaque jour dama koy faral di wax dañuy jël benn dossier àtte si justice bi yëpp. te justice bi chaque jour dañuy àtte ay dossiers di teg chaque jour ay milliers et des milliers de dossiers mais dañuy gis ne benn dossier amaana bon kooku c'est un leader politique wala demee noonu yow ar li mu wax wala liñ ko téewee yow amaana bëggoo ko. yow nga jël loolu nag ne kon lii justice bi yëpp laay taxal ñoom ñëpp kon nekkuñu li nga xamante ne nii mooy su mooy suñu mm. mais magistrats yi nga xam ne ñoo ne fii Sénégal c'est des magistrats quand même très respecté ñoo xam ne dañ subir benn formation rigoureuse très respectée aussi ñu xam droit di ko doxal. Mm-hmm. ba bu ñëwaatee ci li nga xam ne peut-être moom lañ koy toppee ak article yi nga xam ne lim nañ leen ci boo ñu mënee dikkalaat ci article yi nga xam ne kon euh, lim leen nañ ci bokk nañ ci soixante quatre vingt sànq tam junj nga. Mm-hmm. article soixante quatre mm-hmm. yaakaar naa. Mm-hmm. ak la nga xam ne euh, mën na ko caa fekk. Ah, lan lay waaw parce que bu fekkee li nga xamante ne nii moom mooy article soixante quatre bi nga xam ne mën nañ ne bokk na si article yi phare parce que y' a beaucoup d' surtout en matière de procédure ak code de euh, pénal bi yuy wax si affaire li nga xamante ne nii mooy délit. bi nga xam ne moom lañ koy toppee mooy divulgation d'information à caractère euh, top euh, à caractère top secret voilà classé top top secret kon da ngay gis ne boobu noonu mën nañ ko si toppee bu dee dañu dañu taxaw si article 64 bi daf ne sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans tout Sénégalais ou étranger qui sans condition ou d'espionnage aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendu public par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale kon dangay gis ne li mu li mu li mu tënk ci article 64 boobu daf ne man na ko see fekk atu kaso ba juróomi atu kaso bépp sénégalais wala sax koo xam ne du sénégalais waaye du jëf ci mun ko jëfe biir Sénégal information boo xamante ne xabaar boo xam ne xiba xabaaru militaire la ñu wax ne kat mu jël ko fësal ko mhm. si loo xam ne ki nga xamante ne moom moo mooy autorité bi mayu ko ko mu jël fësal ko loolu mën na ko see fekk ak yu demee noonu parce que les informations militaires ak informations yi nga xam ne dañ koy def ci biir justice lépp bépp information bi ñu classé top secret rek da ngay gis ne loolu loolu loolu dañ naan lii du ko kenn du ko génne te tamit ku du ku nekk moo ko war a xam Hmm. ndax tey même boo dee demee dans les plus grandes démocraties notamment aux États-Unis yu demee noonu da ngay gis ay dossiers yoo xamante ne dañ leen di classé top secret nekkul ne le grand public dañ si war a am li nga xam ne nii mooy yoon waaye ñam concerné rek ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy xam hmm. te loolu nag lenn cause bi leen la mooy lan bu mu def atteinte à la défense nationale parce que am na yoo xamante ne nii surtout si wàllu armée surtout si wàllu justice euh, seen euh, jamono ji gis ngeen ni mu tëdd tey jii ñu ngi wax fu nekk nii tous les états sont menacés apparemment état yëpp fu nekk nii seen sécurité surtout ici au dañ ko dañ dañ dañ dañ dafa xaw a dafa mën nañ ne mën nañ ne teguwul na mu war a tegoo ñu bëri da nga gis ne bu fekkee réew mi nga dëkk amul problème mu sécurité da gis ne réew mi la jege am na mbir yoo xamante ne nii que c'est des menaces pour vous donc y des informations yoo xamante ne nii warul nekk loo xam ne dañ ko war a fekk si si ku Mm-hmm. parce que cela peut porter atteinte à la défense nationale te qui dit défense nationale dit sécurité nationale mm-hmm. euh, ndax tey euh, jàppoo ne maanaam Sénégal tey ak peut-être fi démocratie toll tey jàpp journaliste euh, tëj ko ndax du mel ni benn ab démocratique waaw jàpp journaliste tëj ko tout d'abord duñ ne recul démocratique la mais nekkul loo xamante ne nii aussi lu gën la c'est-à-dire que journaliste bi tamit c'est un sénégalais avant tout c'est un avant tout te aussi lépp loo xamante ne tamit war na ko def war naa jéem a wàccoo ak yi nga xamante ne nii moom la réew mi tëral moom ndax tamit Sénégal ba mu mu defee nouveau code de la bi da ngay gis ne Reporters sans frontières entre deux mille dix huit ak deux mille dix neuf ñuy féliciter Sénégal li nga xamante ne nii may na ko journaliste yi instant ñuy mën a exprimer wu c'est li nga xamante ne nii mooy suuf. sur toutes les questions apparemment. njiitu njiitu réew mi sax waxoon na fi ne moom ci maanaam ci nguuram kenn du teg journaliste na délit de presse. voilà mm. voilà de presse délit de presse kon gis nga c'est un peu parce que tey jii bu ñu bu ñu bu ñu jaawale mbir mooy délit de presse ak divulgation yi nga xam ne nii mooy c'est des informations classées. ñaari daa bokkul waaw ah, xaw a bokkul. parce que bu doon délit de presse mooy peut-être lu mu wax garaawul noonu mais bu fekkee nag day dugg si wàllu wàllu yoon ak wàllu justice ak wàllu défense. loolu noonu day comme ni ma ko waxee day doon beneen mbir. day doon beneen mais nag nekkul lu gën aussi si suñu image ndax au niveau international mën nañoo parce que Sénégal dafa signé ay accord au niveau même bu dul euh, loi yi au niveau national. mais au niveau international Sénégal day signé ay accord day am aussi ay classement yoo xam ne dañ koy faral di def parce que tey liberté yi surtout liberté de la presse dafa bokk ci benn élément déterminant sur ce qu'on appelle lu ñuy ni ñuy mesurer la démocratie dans un pays. Mm-hmm. te kon bu fekkee ñi koy exercer nga nga nga nga nga jëflantee ñoom ak ñeen nañ mën naa mën na laa mën na laa yàqal si côté boobu noonu parce que dañ ko nangoon en 2017 ba mu defee li nga xam ne mooy code de la presse bi euh, journaliste yëpp ap apprécié wala nga xam ne sa délit à la presse tey boo ko defaan da ngay gis ne Sénégal daan si teg dafa métti lool parce que dana naan képp ku def ku ku fexe ba journaliste bi na mu waroon a liggéey liggéeyewul noonu moo xam da nga ko da nga ko da nga moo xam da nga ko def yéen da ngay gis ne dañ la daan daan yu sori daan yu metti sax yoo xam ne day taxaw dana naan dañ dañ lay amende de cinq cent mille jusqu'à trois millions de hmm. francs CFA kon da gis ne loolu délit d'entrave à la liberté de la presse la te gis nga loolu c'est quelque chose boo xamante ne ni c'est un acquis kon mënoon nañ koo essayer euh, de lu mu gën a baax hmm. mënoon nañ koo essayer téye loolu mu gën a baax hmm, bon voilà au lieu ñu koy tëj wala yu demee noonu ñu ñu jox ko benn avertissement tout ça. waaw ci justement sax ci loolu laa bëggoon ñëw xam nga mu ngi ci euh, tey la ñu waxoon lañ ko war a euh, lii di procureur. te mm-hmm. peut être nañ am yaakaar tey comme li nga wax bu demee peut être ñu am nañ def ak moom rek mais bañ ko tëj. voilà jox ko ay conseil tout d' abord jox ko ay ay avertissement wax que ne que ces informations la ne sont pas quand même des informations à à divulguer ou bien à partager mais nag dafa am aussi beneen principe bu ñu tënk ñun juriste yi mooy ñu n'est censé ignorer la loi. parce que suñu publier loi suñu voté loi à l'Assemblée nationale ñu publier ko journal officiel dañuy taxaw ne kon ñëpp ku dëkk Sénégal de xam nga loi bi nul n'est ignorer la loi du fait soo defee nag loo xam ne dafa nekk à à l'encontre de la loi dañ naan dura lex sed lex c'est-à-dire que la loi est dure mais c'est la loi euh, am na solo euh, leeral yooyu euh, Cheikhna Ahmed Tidiane euh, xanaa rek dañuy damay jàll si beneen euh, beneen question boo xam ne it euh, mbirum yoon yoona yoonal la ba léegi muy Ousmane Sonko ak li nga xam ne moom mooy mbir mi nekkoon ak diggam ak Adji audition bi amal nañ ko semaine bee ñu gën xaar nañ lu yàgg nag mbir mi yàggoon na trop trop finalement amal nañ li nga xam ne mooy audi audition ba d'abord d'abord yàggaay boobu yow lan nga ne moo ko war a mën a def ci procédure boobu lu tax. maanaam déglu bi ndax boobu ba léegi ñu koy doog a mën a déglu nii nii. waaw xam nga affaire bi tout d'abord euh, mën nañ ne affaire monsieur Ousmane Sonko la ak ki nga xamante ne nii mooy mooy mooy aji aji Rabi Sarr. Mhm. léegi euh, lu yàgg lu waral yàggaay bi ndaxte comme ni ñu koy waxee monsieur Ousmane Sonko c'est un homme politique aujourd'hui il est chef de parti et il aspire à devenir président de la République c'est-à-dire que tey jii moom nitu politique la day def politique. waaye tamit njiitu parti la waaye tamit day def politique te ñaare euh, politiciens yi seen dossier du du gaaw noonu du yomb noonu parce que enjeu yi si tegu moo bëri parce que tey da ngay gis dans la euh, ñi di àtte da ngay gis mbir yu bëri yu ñëw si yoon concerne affaire u viol du mat temps benn bi ñu daal di ko vider et l'affaire est déjà classée ñu atte ko mu gaaw mais bii nag dafa concerner ki nga xamante ne nii mooy c'est un homme politique en plus chef de parti en plus mu bëgg a président de la république kon day am enjeu day am enjeu politique si biir. Ah. voilà donc ah. day am enjeu li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy politique ndax ki nga xamante ne nii mooy parce que audition bi li ko waral mooy dañuy déglu affaire bi au fond. ndax en droit dafa am lu ñuy wax la forme et le fond. forme bi mooy affaire procédure bi fi ñu ko war a jaarale. fond bi nag mooy mbir yi nu mu demee. ndax suite suite boote la xewee. Euh, aji Sarr dafa jiiñ Ousmane Sonko ne daf ko sàkku yegg si kawam si loo xamante ne nii du téye bakkanam si loo xamante ne nii moom ànd na si alors Ousmane Sonko ne ko loolu amul. Mm-hmm. kon ñu jaar fi ñu war a jaar dépôt plainte yi ak yi mbir yi ni war a demee yëpp procureur bi oo ko déglu ko tout ça ba mu paree mu inculpé ko voilà léegi kon foog mu dem instruction si juge d'instruction ndaxte bu ñu ne instruction mooy lépp loo xamante ne nii euh, crime la. dafa war a jaar instruction euh, euh, obligatoire ok te aujourd'hui viol dañ ko criminaliser au Sénégal kon yoon la mu jaar li nga xamante ne nii mooy si juge d'instruction bi moom mu def li nga xamante ne nii moom mooy enquête d'instruction enquête d'instruction la moom moo koy permettre à ce que mu rassembler ay preuves yi mu am lépp loo xam ne da koy may rek pour mu mën a xam ne lii mbir mi ndax am na wala amul parce que bu ñuy wax audition au fond moom euh, des fois li tax sax ñuy classer dossier bi ne warul génne parce que day doon laaj xóot surtout en matière de viol day doon laaj yoo xamante ne laaj xóot la te nit ki ak intégrité euh, bi mu am voilà nit ki wet gi ñu ko war a wekk ak tamit présomption d'innocence am lu hmm. ñuy may ñuy ñuy waxtaane loolu fu nekk tey ana nan nga gisee taxawaay ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamee ne mbir mi am na génn na wax na laaj yañ ko laaj ak euh, yoo xam ne sax dafa lank ne dafa lànk ne di ca tontu te posture boobu nga xam ne gis nga mu mu taxawee ana noo ko jàngatee. waaw euh, c'est un leader politique voilà c'est un leader politique et il a cette ce droit parce que instruction aussi nekkul ne luñ la laaj wala lu luñ la def loo nga def. loolu c'est à préciser parce que tey jii da ngay gis dans certains dossiers juge bi ne waaw dem defal ma mandat de perquisition wala yu demee noonu wala di la def loo ay ay test ADN tout ça mais yow am nga aussi nekkul ne lu mu la laaj rek nga def donc le leader du PASTEF il a des avocats autour de lui te ñi nga xam ne nii dar nañ ko si wàllu si ay avocats du du ñuy avocats yu ndaw. ils connaissent très bien le droit ay kàngam lay voilà ils connaissent très bien le droit donc suñ ko adopté loo benn posture boobu noonu rek je pense que cela peut lui être favorable. ok kon juñu nga ko léegi sax ADN boobu kon euh, looloo tax xam naa mu lànk ne du ko def est-ce que mu nga ñëwalaat si ADN boobu quoi luy ADN ak it ana ban. Euh, ban ban ban impact la mën a def ci li nga xam ne moom mooy procédure. waaw parce que comme li ma la wax juge d'instruction moom lépp loo xamante ne nii dimbali pour mu mën a inculper waa ji wala mu bañ kaa mën a jox ko non lieu loolu daf daf koy def moom. parce que juge d'instruction la day étudier affaire bi au fond des choses. mooy fee yi lay si biir xool nu mu demee. Hmm. te lépp lu koy jàppale pour mu mën a xam nu muy demee daf koy def. mais nag euh, juristes yi fan yi ni ñu xaw a wutale ñun xam nga rek les juristes <laughs> mooy est-ce que test ADN parce que ADN euh, scientifique yi ñoom ñoo koy gën a mën a comprendre bien sûr parce que ce n'est pas ça ne relève pas du domaine de la droit euh, du droit ñuy wax ADN voilà sanitaire la affaire affaire cellule la affaire yu demee noonu mais ndax nekk na preuve war naa doy preuve si viol wala certificat médical rek doyoon na parce que ñenn ñi dañu waxoon ne certificat médical doyoon na kuy attesté ne Ousmane Sonko kat eggul si kaw Adji Sarr ñeneen ñi ne noonu non def test ADN bi fii egsi nañ fii nañ def test ADN bi pour voir est-ce que affaire bi am na ñenn ñi ne leen yenn juristes yi ne leen kon bu du demee noonu parce que moom kon boobaa procès moral lañ jëm parce que ADN soo suñ ko daan dégg bon parce que ñun nous sommes pas des spécialistes si wàllu ADN tout ça mais ADN suñ ko daan dégg mooy dangay ngay ay cellules par exemple femme bi am na si grossesse walay demee noonu. nga xam ne kii kat ngay xool nax moom mi ah kiikat kat jot nañu seq yu demee noonu ndax xale bi juddu yu demee noonu. mais certificat médical. Euh, si pro pratiquement dossier yu bëri yu wax si viol certificat médical ñoom lañ moom lañ daan doyloo mais na comme ni ma ko waxee rek juge d'instruction bi moom lépp loo xamante ne day jàppale daf koy jàppale pour mu xam mbir mi fu dëgg gi fu mu rek day def mhm. gannaaw audition bi euh, ana lan mën a xewaat ci li nga xam ne moom mooy ëllëgu procédure waaw parce que juge d'instruction bi moom magistrat du siège la bokk mooy ñiy bu dee procureur moom magistrat du parquet la ko parce que day chargé c'est le ministère du public ki nga xam ne mooy ministre de la ministre de la justice mooy kilifa léegi si mën a am mooy juge bi ginnaaw ba mu dajalee li nga xam ne nii mooy enquête am parce que procureur def na enquête préliminaire juge bi fu mu ne moo nekk instruction boo dajalee li nga xam ne moom la am si wàllu preuve ak si wàllu euh, laajte ya mu laaj laajte yu demee noonu bu ko tegee moom mën naa jox seen juge parce que foofu noonu nag day juger avec son intime conviction su jàppee ne lii mu am nii kat jar na mu yóbbu mu bàyyi Ousmane ko jox ko non-lieu daf koy daf koy délivrer li nga xam ne mooy ordonnance de non-lieu su fekkee tamit li mu jàpp li mu am nii jàpp na ne doy na pour kat Ousmane Sonko ñu jox ko li nga xamante ne nii mooy yóbbu ko vers les instances de jugement mu yóbbu ko vers les instances de jugement ñu juge ko kon ñaar yooyu moo fi taxawee fu mu nekk nii. Hmm. ginnaaw instruction ginnaaw ba mu defee enquête bi ba pare ñaari mbir la mën a def. mooy mu jàpp li mu am nii kat moom doyul pour téye Ousmane Sonko yóbbu ko ñu jugé ko mu bàyyi ko mu ñibbi kër wala mu jàpp li mu am nii ginnaaw ay enquête am ak ay investigation doy na pour mu yóbbu Ousmane Sonko ñu àtte ko mu yóbbu Ousmane Sonko ñu àtte ko. Hmm. maa ngi dégg tam ñu naan xaw ma confrontation entre Ousmane Sonko ak Adji Sarr mën na ndax loolu it mën na mën na mën na am ci lii di dossier bi. waaw parce que confrontation moom naa lay amee. bu boobaa na bu juge bi dajalee preuve am mi mu am juge nécessaire que ne affaire bi fu mu ne daf koy yóbbu ñu juge Ousmane Sonko bu boobaa jugement bi du day nekk jugement public ñëpp dañuy am ku bëgg a dem seetaani da ngay dem seetaani te boobaa Ousmane Sonko il sera là aji Sarr elle sera là voilà juge bi di di di dérouler procès bi. y aussi des témoins tout ça bu ko defee ce sera public boobu du am dara lu ñuy nëbbati du am ay euh, ay secret défense ay secret euh, de de l'instruction tout ça mais ba baax ku bëggal seetaan da dem seetaan confrontation boobu noonu bon duñ duñ ko dàq parce que juge bi fu mu ne moom la ñuy déglu mm-hmm. fu moom la ñuy déglu moom moo war a ñëw leeralal ñu ba xam day jox Ousmane Sonko li nga xam ne mooy noo lii mu dem ñu classé affaire bi sans suite wala moom mu jël ko yóbbu ko si dans les instances de jugement ñu bu boobaa nag Adji Sarr aussi foog mu ñëw parce que partie prenante la si si dossier bi. Mhm. loolu mën na yàggaat kon mun na jëlaat temps wala <laughs> mën na yàggaat. waaw waaw parce que dossier moom le temps de la justice gars dañ koy faral di wax n'est pas le temps des hommes instruction moom fu mu ngi xool parce que tey dangay gis dossier yoo xamante ne day toog ay ati at ñu koy doog a am dossier yoo xamante ne aussi si les éléments son clairs y a pas de problème à ce ñuy def ay lenteur Euh, judiciaire ñu yóbbu ko dans les instances de décision euh, dans les instances de jugement ñu xool nu ñu koy nu ñu koy vidé kaam. Mm-hmm. Ousmane Sonko moom bi depuis depuis début mbir moom euh, benn benn taxawaay am benn kii la wax mooy mooy complot. Mm-hmm. loolu la jàpp loolu la gëm. ne mm-hmm. complot la boo xam ne bu ñu bu ñu bu ñu teg si tey ndax tey communication attitude boobu mënu mënu koo indil jafe-jafe nu am lu mu gàllankoor ci procédure beeg effectivement mën nañ kaa laaj ne yow kan moo comploté. aussi démontrer le complot bi par des preuves palpantes par preuve yoo xam ne dañ si mën a teg loxo ne lii effectivement contre euh, complot am parce que affaire bi ba mu amee man dama tàmbali mbir mi si ba muy doog a commencé léegi na dossier politique moom noonu lay demee dossier les hommes politiques c'est comme ça seen affaire yi day mujjee nekk affaire privée au début mais bu ñu doxalee quelque temps mu nekk mujjee nekk affaire publique ku nekk jot si ku nekk wax si ku nekk jëf si ku nekk loolu moom c'est des choses yoo xam ne ça arrive mm, mm. mais je ne pense pas que loolu mën na kaa téye si parce que c'est un homme politique aussi. il doit se défendre. waaw. Hmm. Ah, ah maa ngi lay jaajëfal di la bàyyi rek kon nga <laughs> nga tëj. Euh, waaw ñu ngi lay jaajëfal tout euh, tout d'abord di la jaajëfal bu baax si professionnalisme bi ak aussi intérêt bi nga xamante ne accordé ñu ko si yéen si si yenn question di hmm. jaajëfal aussi sa internet bi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan merci. Hmm. jaajëf di fàttali ne kon euh, moom mooy Cheikhna Ahmed Tidiane Aidara. di juriste nekk itam membre bu société civile di ko jaajëfalaat bu baax itam ci disponibilité am saa ñu ko woowee rek mu bàyyi ay euh, itam kon ñëw euh, fekk si ñoom di jaajëfal itam kon mbokk internet yi nga xam ne yéen ngi doon euh, bàyyi xel di leen jox di daje lu yàggul dara.